waaye ma faral di wax ne Mbàkke Sakho saa bu yëkkati bi laaya waaw uqsimu billah wax naa ko dama ko defee amut laaya bu muy yëkkati amut aaya bu muy yëkkati moom amut aaya bu muy yëkkati di ca tegtaloo ab mbir ngir saxarit si moom réer ga mu nekk jàpp ne dafay dajji la waa sunna nekk lu dut ne aaya boobu mooy doon lay wane ne moom nekkut ci njub xamul Qur'an déggul Qur'an jëfewul Qur'an. laay bu mu jël ci alquran nag laay bu muy jël lu dut laay boobu dafay seede moom mu tegtaloo ko mu jël ko tegtaloo ko ci moom la mu gëm wuteeg waa sunna la ñu nekk la dut laay boobu noonu dafay doon ab lay bu leer nañ ne xàng ci ne moom xamut du ko settantal dégg ko ni nga xamee ne noonu la yàqee jàngin wa noonu la soree déggin te aay ya muy yëkkati ci boppam moo koy feeñal noonu la defee ci ak aay yi ci leer nañ loolu moom aay bu mu munti jël rek bu mu munti jël fu ne waaye nekk na ma ko indil bu mu munti jël Mbàkke mu jël di ko tegtaloo ngir saxal ab mbir wax dafa waa sunna dañoo wax lu wuteeg loolu lu dut ne aay boobu ci boppam waxoon benn aay de mooy doon lay ca moom wala aay yooyu ñoo doon lay ca moom yuy wone yuy xirndeel ne moom ci réer la ci réer la nekk waaye vidéo dafa am benn mbir bu doon dolleew ko boo xam ne daf may fàttali benn mbir boo xam ne yàgg na koo jàpp sama xel nag waaye ma ko junj lu bari mooy damay faral di wax saa bi wax ne moom Mbacké Sakho dafa am benn public bu ñu visé pile ne xamuñu dara dara dara dara booloo ñu mooy ay sangam mi ngi sangam xarit sangam mi ngi sang wala ay mi ngi numéro sangam daf leen numéro jàpp nañu wax xam-xam fekk moom lay wax ay la muy tudd ak la tudd ak la ay dafa bokkut tey wën mel ni yàlla yaa ngi waaye fi ma gën yëgloo mooy ne damaa jàppoon ne sax moo tane public bi public bi muy waxal waaye soo seetantalee su fekkee ne moo tane public bi muy wax li mu leen nga leen gën a dëgër fit rek ndaxte da ngay gis ni niveau bi muy waxee suy wax ci waa sunna da ngay gis niveau bu teera teer la buy wane dara xam ko ci sunna am na benn vidéo mooy indi tamit li muy wax ci wàllu fay julli tey wax ci wàllu talaq da ngay gis ne ki xamut waa sunna lenn lu ñuy wax ci talaq ñoom ba mu nit ñi di doxee ci wàllu fase ak li yàlla jàngale du benn ndax dañuy wax ne yàlla moom dafa yombal sëy jafeel fase gaay yi nag ñoom dañoo yombal fase jafeel sëy yàlla dafa yombal sëy jafeel fase gaay yi ñoom ñu yombal fase jafeel sëy maanaam fase ci boppam dafa nekk mbir moo xam ne yàlla ni mu ko jàngalee ngir benn fase am rekk jafe-jafe bu mat sëkk la su ngeen ñëwee ci réew mi ak réew yu baree bari yoo xam ne dañuy tuddoo islaam te nekk ci lu ci bari ci njàngale njàngaleem ahlu sunna wal jamaa da ngay gis ne pour ñu wax ne sëy ma sëy bi jeex na dafa yomb loolu nga xam ne bokk na ci li nga xam ne des fois da ngeen dégg nit ñi di ko wax ne jigéen soo ko waxee na ko fase naa la fase naa la fase naa la ba muy ñetti yoon sëy boobu day jeex yaa dogal na ay jamono maa ngi seetaan benn genre reportage foofu ci Bangladesh Euh, ñi ngi wax ne ñoom dafa am lu ñuy wax triple talaq instantané mi kom wax bii nii rek triple talaq muy triple divorce instantané xam nga ni ngay waxee jigéen ji ne ko fase naa la fase naa la fase naa la ba muy ñetti yoon te dafa am lu ñu bàyyiwul xel mooy fase yàlla ni mu ko jàngalee ngir ñu comptabiliser benn fase rek day nekk ci diggante ñaari nit ñoo xam ne ñoom dañoo décider complètement ngir bàyyante ndax résister bi ndax résistance bi ci boppam mo yombul xana mu nek nit ko xamne wala ñaari nit ñoo xamne dañu jël décision tass complètement ndax yàlla limu jàngale moy jigen mon ko wax ci surat 65 verset 1 yàlla dafa wax ne yaa ayuha nabiu ida talaqtumu nisaa fa tallixuhunna li hiddatihinna wa axsul hiddata wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا mu ngi nekk suura 65 verset 1 incha allah référence yëpp aussi dina ñëw yàlla dafa wax ne ay yow mi nga xam ne yow la ñu xibaar muy ay yow mi ñu soloo su ngeen di boyal jigéen ñi xam baatu talaaq li muy firi mooy boyal mooy koo xam ne sa responsabilité jeex na ci moom jigéen nag soo ko fasee sa responsabilité du jeex ci moom lu dul ne dafa jàpp xidda ba xidda jamat léegi nag jigéen boo xam ne moom moom dafa war a jàpp xidda soo ko waxee ne ko fase la moom dafa war a jàpp idda ba mu mat ci la ñuy doog a comptabiliser benn fase te léegi ci biir jàpp hidda googa bokkut ak li nit ñuy wax nag bu njëkk ba naan am na kilifa yi dañuy yebal ndaw si jox ko leetu soo demee ne ko soo demee joxal ñu ko sa waajur ñu ubbi ko liir ko gis na dañ koo fase wérut de du islaam te dañuy wax ne ay kilifa ñoo ko daan def fii wérut du islaam loolu amul ci islaam soo ko waxee fase naa la yàlla dala wax na la dala dafa ñu góor ñi ne ñi gëm laa na min bu buyutihinna jigéen soo ne ko fase naa la du ko ay xam ne amul ay fasanaal jëlee say bagage déedéet loolu amut yàlla dana bu leen leen génnee ñoom jigéen ña ci seeni néeg te ñoom it bu ñu génn lu dul ne jigéen ka dafa def mbonte goo xam ne du leer la comme mu nekk lu mel ni njaalo goo xam ne dafa leer naññi leer ñu xam ne lii kat kii dafa njaaloo ci lu amul benn sikki sàkk wala xeet lu mel loo xam ne daal loo xam ne daal faahisha la bu leer nag lu dul ne dafa jëf loolu yow bu ko génnee te moom bu mu génn ndax yàlla mu ne laa tadri laalla allaha yuxdisu baada dalika amra ndax xamoo ndax mën na am yàlla dana am lu mu yee ci diggante bi ginnaaw loolu nga xam ne jigéen soo ko waxee na ko fase naa la yow fi fi mu nekkoon fekk fekkoon ne yéen a bokk ab néeg néeg boobu yàlla dana ko yàlla dala wax yow ku góor ki ne la bu ko génnee te moom bu mu génn nga xam ne mënoo faa nekk naan xaama yóbbu ko sama kër tàntaak ma dem dénkaane ko barab sàngama déedéet yàlla dana askinuhunna min haythu sakantum <laughs> na ngeen leen dëkkal ñoom ci yéen fi ngeen dëkk na ngeen leen dëkkal ci ñoom fa ci yéen yéen ñu góor ñi yéen fi ngeen dëkk fa lay ba noppi it à vos nag nga xam yàlla loolu lay jàngale léegi nag imaginer ñu ne la léegi fase ndaw si su ngeen bokkoon néeg mënoo koo génnee néeg ba yow yàlla dana la yow bu ko génnee te moom bu mu génn ndax yàlla mu ne mën na am mu am lu mu yee ci diggante bi am lu mu yee ci ginnaaw loolu léegi nag gis nga ba keroog xidda jooju di mat lii wax ne fa tallixuhunna li hiddatihinna wa ahsul hiddata wattaqullaha rabbakum su dee yaa ngi bàyyi xel yàlla yàlla dane yow bu ko boyal lu dul na xidda ja dafa mat te mu ne hidda ji nag na ngeen ko takk léegi nag gis nga ba keroog miy yegg ca hidda ja di mat su ngeen séqaatee su ngeen delluwaatee loolu kenn du ko comptabiliser comme fase balaa ñuy mën a comptabiliser fase mooy ñu dem ba hidda ja mat su hidda ja matee ci ngay doog a woo seede noonu la wax ne fa ida balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi maarufin aw faarixuhunna bi maarufin fa ashhidu zaway adlin minkum mu nekk ci surat 65 verset 2 léegi nag gis nga lu mel nii mooy am benn yoon am ñaari yoon am ñetti yoon ñu doog a wax ne sëy boobu jeex na léegi ñaata sëy la nit ñi xam yuñ wax ne jeex na yoo xam ne demee na nii nga xam na sëy balaa ngaa woo seede it idda ji dafa mat fii nag dañ naan na fase naa la xaaral ma dem wut ay seede léegi ñu wax na fase naa la loolu wérul de soxna sa da koy fase mu jàpp idda ca kër ga doo ko génnee su dee benn néeg ngeen amoon ca néeg ba doo ko génnee te moom du génn te it doo ko xatal loolu loolu ko wax bu ko xatal yooyu yëpp yàlla da koy wax ba loolu nag dem ba mat ba mat sëkk nga woo ay seede ci lañuy ñuy doog a comptabiliser benn loolu nag muy benn ñaar ba ñett ci la sëy bi di doog a jeex ñaata sëy ngeen xam mu demee noonu ñaata sëy lañu jeexal te mu jeexee ci nii ñaata ngeen ci xam bëri na sëy yu ñu jeexal ñoo xam ne am nañuy njaboot dem ba doon ay mag ñu naan leen sëy bi jeex na des fois ñu bëggante waat sax waaye dañ naan leen sëy bi jeex na ndax dañ ko jéxal ci li yàlla jàngale wa dañ ko jéxal te ñom lañuy wax الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وله نيني بكي القرآن سنة لكبد زيار نيني على سبحانه وتعالى مدهن التوفيق تلفنكم وبيلو ينبقوا أنداريتي بكي سافر ديتشوك fàttewuñu vidéo ba ñu tàmbali woon ngir daal di koy eggale biir ni lay santaan ndax foofu daf ñu war a taxaw taxaw bu yaatu ndax foofu mooy euh, base riiram wala waroon deseen ci vidéo ba ñu tàmbalee incha allah ñu ci desiwaat benn par benn ak fa mu dugg moom ba dugg ci góote goo xam ne muy gën a leeral ku réeram waaye ma faral di wax ne Mbàkke Saaxo saa bu yëkkati laaya waaw uqsimu billaah wax naa ko dama ko defee amut laaya bu muy yëkkati amut aaya bu muy yëkkati moom amut aaya bu muy yëkkati di ca tegtaloo ab mbir ngir saxal ci moom réer ga mu nekk jàpp ne dafay dajji la waa sunna nekk lu dut ne aaya boobu mooy doon lay wone ne moom nekkut ci njub xamul Qur'an déggul Qur'an jëfewul Qur'an laay bu mu jël ci alquran nag amut laay bu mu jël lu dut laay boobu dafay seede moom mu tegtaloo ko mu jël ko tegtaloo ko ci moom la mu gëm wuteeg waa sunna la ñu nekk dut laay boobu noonu dafay doon ab lay bu leer nañ ne fang ci ne moom xamut Qur'an du ko settantal dégg ko ni nga xamee ne noonu la yàqee jàngin wa noonu la soree déggin te aaya bi yëkkati ci boppam moo koy feeñal noonu la defee tëj ak aaya yi ci lu leer nañ loolu moom aaya bu mu munti jël rek bu mun munti jël fu ne waaye nekk na ma ko indil bu mun munti jël mbàkke saaw mu jël aaya boobu di ko tegtaloo ngir saxal ab mbir wax dafa waa sunna dañoo wax lu wuteeg loolu lu dut ne aay boobu ci boppam benn aay de mooy doon lay ca moom wala aay yooyu ñoo doon lay moom yuy wone yuy xiirndeel ne moom ci réer la ci réer la nekk waaye vidéo dafa benn mbir bu ci ko boo xam ne daf may fàttali benn mbir boo xam ne yàgg na koo jàpp sama xel na waaye daawu ma ko junj lu bari mooy damay faral di wasaay bi wax ne moom Mbacké Sakho dafa am benn public bu ñu visé pile boo xam ne xamuñu dara dara dara dara booloo bu neexee mooy ay sangam mi ngi sangam xarit sangam mi ngi sang wala ay sangam mi ngi numéro sangam daf leen numéro gars yi jàpp nañu wax xam-xam fekk moom lay wax ay la muy tudd ak la muy tudd ak la ay dax bokkut tey wën mel yàlla yaa ngi waaye vidéo li ma gën a yëgloo mooy ne damaa jàppoon ne sax moo tane public bi public bi muy waxal waaye soo seetantalee su fekkee ne moo tane public bi muy wax li mu leen tane bariwut li leen gën a dëgër fit rek ndaxte da ngay gis ni niveau bi muy waxee suy wax ci waa sunna da ngay gis ni niveau bu teera teer la buy wane dara xam ko ci sunna am na benn vidéo mooy indi tamit li muy wax ci wàllu fay julli tey wax ci wàllu talaq da ngay gis ne kii xamut waa sunna lenn lu ñuy wax ci talaq ñoom ba mu jàpp sax lu mbir yoo xam ne lu évident ñëpp xam ko xale buy doog ju su ko liire xam na ko ba mu jàpp ne waa sunna ñoom nekkuñ ci loolu ndax da ngay seetlu ci waxam dafay jàpp ne waa sunna ñoom duñu ejdaloo jigéen waaye men xamuñu loolu te ca dañuy teg loolu moom du la ab nangam dem naa bu raxam sëñ la déedéet moom awaa mi nee na sax yenn saa ay vidéo la lay yónni nee na vidéo waa Bangladesh loolu mooy laay moom waa dem nañ waa ñoom nii ñuy def sàngam xataa ci su dee wax sax yahud ni ñuy jullee naa la naa la yónnee benn vidéo xam ne ay yahud nii la ñuy jullee nga xam niveau bu baa baa baa baa baa la tolloog niveau ñi muy nga xam ne ñoom lay euh, ñoom li lool nag daf may fàttali rek li nga xam ne civilisation yi ma dañ koy wax mooy la àlla bokk na ci wala bokk na ci sax li nga xam ne moo ko réeral moom mooy réeree le minimum ci sunna dañuy faral di wax naan civilisation ba dañ koy dañ koy fekk ñuy indi problème noonu te wolof di ko dippee ñoom soo réeree mbir noonoo ko mooy nit lu mu réeree noonoo ko mom ñàkk xam sunna moo tax mu nono sunna wala bokku na ci bokk la chek ne bokku na ci ñak am xel ndax dama wax ne fam problème psychologique la la chek fi ci ay mbir yu bari yu koy firndeel xam ki am na problème xel am na problème mu modestie loolu c'est lié ci problème mu xel problème ñak xam sa bop mëno jàng alquran bu wér mëno ci déggo arab ba pare jàpp ne nag yow yaa war a mën a dégg waxoo ci ab réew de wala waaye umma bi yaa leen gën a dégg alquran ma mbir yu évidence nag jàpp ñoom dañ ko réeré loolu am xel rek doo ko def waxuma nag nga dugg sax ci yeneen détail mais dafay bokk dafa réeré sunna moo tax mu jàpp ne waa sunna xamuñu lu idda yi xaw wala boog moom mooy ñëw di expliquer waa sunna lu bees ci aay yi ni ci idda jigéen fi idda wu mu jàpp ne lii laay bi mooy gis nañ benn jigéen ñu ko dañ koy bidal téer wala benn laaj mu dem ci papaam ba benn laaj ci nañ def mu jàpp ne loolu mooy xam-xam wala conseil may jox bépp jullit mooy àdduna bi ubbeeku na lool waaye nag bala ngaa am sob ne nga ouverture di dem di xool leneen nga na nga fexe ba xam lenn sax la ngay la nga xam ne yow ca nga nekkoon ba bokk sa ngay fexeel ba xam ko ba am ci benn maîtrise nga doog a sa ubbeeku ci di waaye soo xamut la nga nekk nga dem ubbeeku ci des da ngay mujj waxuma nekk ci réer waaye da ngay mujj nag yàlla nattoo la far wala mën na laa nattoo nga nekk a bopp ci réer di woote ci réer comme ni ko waa ji ni ko ci loolu loolu ab laytaan dama koy faral di def saa ma ngi commencé benn introduction bu gàtt bala nga ñëw ci li nga xam ne moom mooy texte si mu indi tey kii di Mbacke Sakho ci am xelam bu gàtt dafa jàpp ne moom ne alquran su fekkee ne jigéen dañu ko fase wala jigéen dañu ko fase fam ñaari mbir yu wax nee na jigéen suñ ko fasee wala boog fase jigéen fase mënta am lu dut ne góor ak jigéen dañoo dëppoo ci kaddu loolu ay nar yi kase la andiw ko sax nag da ci loolu da koo tudd rek mais ñëwu ci ndax mënu ko indi ci alxuraan ne soo fasee góor fase jigéen faaw ñoom ñoom ñu dàq ko ci kaddu sax góor yi dañuy dàq ko ci fase bi sinon fase bi du am loolu la la jëkkee mais ko nag ndax la mu ñëwaat ci ginnaaw daa weddi loolu indiwaat na ci biir ne fase moom góor gi mën naa fase jigéen mu dem te jigéen sax mën naa bañ bëgg a bañ fase ko na jigéen ki góor ki mooy jël moom mooy bàyyi mais loolu indi ko loolu li ko yóbbee mooy day déglu yenn saa yi dama day déglu ay nit ñoo xam ne c'est des personnes ñoo xam ne dañuy jéem a moderniser l'islam di jéem a indi loolu xam naa loolu te moom da koy koy seetaan xam ne am nañu ko influencé ci ñoo xam ne ñun nit ñu mel noonu la des fois dama koy sentir sax Timéra xaw na ko benn waay bi ñu tuddee Timéra influencé na ko mais indiwut loolu mais da ko junj ay nari kasa la alquran mu soxla loolu xam fu mu ko mënee indi ci alquran naam amul fu ko mën dégg alxuraan ne jimmi fase tayib foog ñëpp góor jigéen daal di d' accord loolu su fekkee lu kenn du ko tuddee ci fase mais du comme indi ko di ñëw ci loolu beneen mbir bi mu indi mooy fi mu insisté mooy su fekkee ne da nga fase jigéen ne ko fase naara la idda ba batut nga jëlaat ko fase boobu kenn du ko compté kon balaa ñëw fase jigéen ne fase ne nga ñetti fan foog kon jigéen ko nga fase ko idda ba daal di mat su idda ba matee ñetti yoon su boobaa boog su ne boog su idda ba matee benn yoon ci di wax ne fas na ko benn yoon ñaari yoon fas na yoon su fekkee loo amul kenn du kenn du jàppee loolu tudde yoon fase te pourtant li muy tiim di ko liir moom moo koy weddi alxuraan boobam moom la mu tudd lépp moo weddi loolu mu wax mais lépp am ci xelam la koy teg day fàtte alxuraan bi muy liir moom jàpp al alxuraan mi ngi tuddee fase tàkkalikoo mooy bis bi mu jigee léegi ne ñu ne ko jigéen nga ci kër ji kër ngi def beneen kër kër baay yaa ngi def si kër baay jamono jooju lañ tuddee fase te li mu liir yëpp nañ ko indi mu leer nañ loolu alxuraan tuddeewu ko tuddee na ko fase avant muy dem amul fu alxuraan waxee moom li liir yëpp amul fenn fu mu waxee ne fase bi duñ ko tuddee fase lu dut ne jigéen ki dem na jóge na kër jëkkëram daal dem ahlu sunna amuñu problème comme moom ni ko jàppee ci ne nit ki suñ ko fase dafay des dafay des kër jëkkëram ci idda si diggante idda boobu tamit diggante da koy jëlaat loolu amu ci benn problème problème bi mooy léegi fase bi bi na fase ne nit ki moom pare na wala jigéen ki iddawu na ba del ba génn kër ga mooy ginnaaw idda kooku lañuy tàmbalee compter nga xam ci dañuy woowee séede bi mu ñëw loolu léegi ñu koy déglu xalaat léegi toog leen nga xalaataat léegi ndax le indi na leen fu alxuraan waxee loolu indiwul leen ko indiwul leen dara lu wax wax la bala mu indi yëpp daa contraire la wax mais laaj posez-vous la question ndax Mbacke Sakho wax na leen ci benn aaya bu mu tudd bu ne léegi su fekkee indi aaya bu ne day iddewu aaya bi ne jigéen ki su paree iddaam ku war kenn war koo génne kenn koo xatal lu dut ne dafa benn dafa def faaxisha loolu indi na ko d'accord mais amul fenn fu mu indee alquran fu ne léegi nag compte bi moom mi ngi tàmbalee mi ngi tàmbalee ginnaaw ba nga xamee ne. aj daw na pare indi ko fenn ayib kon si bàkkee saxo moom jigéen mën nga ñëw par exemple góor mën nga fekk jigéen nga fase ko ne ko fase naa la nga fase ko idda bi mën nañ jël ñetti xayit man ñetti ñu jël jigéen boo xam ne du am xayit ñu ko ñetti weer nga fase ko ñaari weer nga jëlaat ko fasewaat ko mu dem ba ñaari weer nga fase nga jëlaat ko benn weer nga kon en fait mën ngaa ji moom l'islam gi muy jàngale mooy <laughs> su xamoon esprit l'islam dina xam l'islam loolu la bëggoon a tëjal jigéen ñi mooy jël jigéen di ko fooy c'est-à-dire saa boo meree ne jabar fase naa ko am nga ñetti weer ñetti weer xalaas fase moom arin lañ ko kon mën ngaa jël sa soxna di ko fase juróom juróom benn fukki yoon téeméeri yoon ci ñetti yi te l'islam ko konteel su ko boobaa nag ko nga jël fase day doon loo xam dañ koy jox ak foowaay goo xam ne kenn du xamul lu mu doon te l'islam itam mu jël fase def ko ñett xamoon fekkoon dina jàng alquran dëgg di ko seetantal xam sunna yéen dina xam ne lii li esprit bi taal islam jël fase tënk ko ci ñett ak li xewoon loolu islam doon tëj moom mu ñëw ibbiwaat ko mooy da ngay fase rek di fase rek di fase fekkoon ñetti weer am nga ci droit jëlaat ko nga koy jëlaat mun ko fase mille et une fois fu mu ne nga ko fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la mooy jigéen ki dootul mun nga fase sa dund gépp mun nga di fase sa jabaat kenn du mos a compter benn fase lislaam xam foogoogu ñoon fooy fase moo tax bu ñoon fase bis boo ne jigéen fase naa la fase ga compté nañ ko benn ñu xool idda gi nag mooy idda gi ñu xaar ñetti weer yoo xam ne mën nga koo jëlaat réccu nga loolu nga jëlaat ko waaye nag am nga benn doo fawee mbir mi soo defee tey ñaari yoon ñaar ñetti yoon ñu ne la foog mu amaat beneen ci kër li yëpp nañ indi ay benn par benn mais pour Mbacké Sakho da ngay ñëw fase fase fase fase fase sangam yaa ngi jëlal rek ci biir edde bi rek del fase rek mën nga di fase di fase di fase di fase di fase di fase di fase te yaa ngi jëlal ci biir edde bi rek kenn du ko compté comme fase na utiliser xelam kese ndax lislaam dina indi lu mel noonu à chaque de alquran ga mooy alquranu xelam ak sa dafa am alquran gi bi liir alquran ga moo nekk ci xelam bi mu fanaanoo xalaat ko bi muy lii rek bi muy fanaan ci xelam bokkut boobu la ñuy indil moom alxuraan gi nekk ci xelam mu koy mu koy mu koy gisu dégginu boppam ci alxuraan gi déggin sax yëfi dofam yooyu muy xalaat ci alxuraan moom la jàppee mooy alxuraan waaye alxuraan googu mooy defee noonu mais alxuraan gi nekk moom liir moom doxewut na euh, doxewut euh, doxewut noonu kon ay alxuraan ñëw ci fase dafay indi mooy fase fase fase mi ngi dog ci ba nga ko fase soo ginnaaw fase gi am na idda idda ga su matee ci la tàqali koog dam kon dafa am fase fase gi ak li nga xam ne mooy tàqalikoo gi nga xam ne mënoo too koo takkaat lu dut ci takk gu bees mu am ginnaaw fase gi ci biir idda gi mën nga koo jëlaat te du amaat takk gu bees lislaam loolu la tàqale waaye lislaam xam le ci aayu leer yoo xam amul sikki sàkka ne fase gi ñu koy tuddee fase ba nga ne fase na te loolu foofu la ñuy tàmbalee compter fase gi waaye tàqalikoo gi moom mi ngi am ci ginnaaw ba nga xamee ne idda gi mat na ci lu amul sikki sàkka ci alquran ci lu benn sikki sàkka ci ñu ñëw ci benn par benn ñëw ci suratu talaaq la njëkk indi foofu la foofu la ñëw moom ci foofu la yem indiwut aay yi xam ne nekk suratu baqara ñooy suratu talaq yàlla mi ngi naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayuha nabi ida tallaqtum nisa fa talliquhunna لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يلا سنو بروم في سورة الطلاق في فرس بيجيتو سورة دي ديفورس في بريمير فرس منين يو ينين تبي سولين دي فاسي سيني سولا نغلن فاسي كيلان فاسي بو خمني دافاي دون تاع الدواء tadde bi nag na ngeen ko na ngeen ko na ko takk ragal seen borom bu leen leen génne mooy kon fase na ko pare lislam dafa fi mu njëkk dafa tuddee mbir mi fase soo leen fasee fase na mu ne soo leen ko soo leen fase daa tallaqtumu nisa fa talliquhunna kon fase na ko ba pare nag mooy leen laa tuxrijuhunna ginnaaw fase ko kon loolu fase na ko tuddee pare bu leen génne seeni kër bu ñu génn loolu dina dañoo tàbbi ci faahisha leer waaye day gën a leer mu continuer fa ida balagna ajalahun fa amsikuhunna bi maaruf aw faariquhunna bi maaruf suñu demee nag ba egg ajal ba di mat mooy suñu demee ba idda ba mat su boobaa nag mun ngeen lay mooy fii nii ida balagna ajalahunna su jegee idda ba mooy mu mat su boobaa nag na ngeen def su ma ngeen tàqali ko ñoom wala mu nga leen jëlaat ci ci maaruuf washiru dhaway adlin minkum boobaa nag ngeen mën a jël li nga xam ne mooy ñu seede kon fii nii lam ñu faariquhunna mooy fële ne ne fase la mooy fase ngeen ba pare waaye tàqali ko kañ lay am ginnaaw ba idda gi mate déglu baax yàlla fii dafa tàqale tàqale gi fase gi ak takkale koo gi ba nga ne fase naa la lislaam tuddi na ko fase moo tax mu ne ida tallaqtumu nisaa foofu fase am na mu ne tàqaliku kañ lay am mooy ginnaaw bi idda gi matee après ci laaya li nga xam ne bi mu daal ku nekk ak sa idda mu ne wallaahi yaisna min almaxiid min nisaikum إن irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur ñi nga xam ne ñoom dañoo egg ci ménopause mooy xalaatutuñu amatuñu espoir ci am masri ñoom seen idda ñetti weer la ak ñi nga xam ne wala yi lam yaxid ñi nga xam ne ñoom amaguñu masri ñoom ñetti weer lañ wa ulaatul ahmaali ajaluhunna an yadana xamlahun ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk dañoo ëmb dañoo wann lor ñoom seen idda mooy ñu wasin kon nga gis ne ki nga xam ne moom moom moo nekk ci ak ëmb saa bu wasinee idda ba jeex na ci diine Mbàkke saa kooku mën nga koo jàpp ci ëmb gi ci juróom-ñeenti weer yi mën nga koo fase téeméeri junni fase di ko jëlaat kenn du ko compter fase saa yi bu la ne pif nga ne ko Sénégal saa yi bu la xoolee xoolee bu la nga ne ko Sénégal mën nga ko jëlee. kon fii nii aay yi mu tudd am fu ay waxee ne ginnaaw bam ne aw na bi ma'ruf foofu la ñuy tàmbalee compter loolu moom dégg la ci boppam moom moo déggee noonu am fu aay bi waxee nga indi fu aay bi ne ginnaaw ba ne faariquhunna boobu la ñuy tàmbali compter aay li mu wax mooy ci ginnaaw ci jamono jooju ba idda mate ci la ñuy tàqalee ci lay mën a génnee kër ga dem feneen dem kër ba ay ñibbi këram waaye waxute foo la ñuy tàmbali compter bal li aay bi feeñal mooy ne tuddee na ko fase balaa muy génn te nag soo demee sootu baqara foofu la gën a ti leere nag sootu baqara moom te moom boobul andiwut te mooy bi nga xam ne mooy wàññi fase yi yàlla sunu borom daal di koy leeral ci nu xam ne amut benn sikki sikki sàkk soo demee ci sootu Bakara tàmbaleel ci laaya 226 laaya 226 yàlla nee na lilladina yu'luuna min nisaa'ihim tarabbusu arbaati ashhur فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم يلا في yàlla fii نيغا خامني dañuy ilaa yi nga xam ne dañuy jël seeni soxna daat leen di gàddaay aw diir yàlla ne ñooñu gàddaay seen soxna ñooñu faseeguñu ñooñu waxuñu fase ñoom ñooñu waxaguñu dara ñooñu yore gàddaay soxna si soo gàddaay saw soxna gàddaay ba nañu xaar lu toll ñeenti weer su fekkee ñeenti weer nag mat nag mu del si jël wala balaa ñeenti weer ba mu ñëw jël si jël soxnaam foofu noonu dara du fa am mu ne waa in azamu talaaq waaye suñ leen gàddaayee ñeenti weer yooyu nag li moom mi na mooy dañuy jël décision fase fekk dañoo jël décision fase fa inna allaha samin alim nga xam ne fii li muy tuddee fase ba tey mooy jamono ji wax na fase naa la loolu la islam tuddee fase moo tax ki gàddaay soxnaam ñeenti weer wala bu gàddaay soxnaam danaa ko ñeenti weer si mate moom faw nga jël wala nga fase faw nga jël wala nga fase fase gi mooy mu ne fase naa la يالا ريتيتك موني والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء موي ني موي ني ام مصري موني نيغا خامن دان لين دي فاسي نيوم دان لين دان لين فاسي موي يالا لين تود نيو فاسي ني فاسي والمطلقات فاسي نان لين ني ني فاسي لا تود ني ني فاسي دان لين فاسي موني نيو ني دانيي توك نيوم نيت قروء قروء لي تيغي سي ام سي ndax xayda la mooy wala tahur lu benn mbir la mooy na ñoom dañuy ñi nga xam ne ñoo nekk ci dañuy toog ñetti masri wala boog ñetti purification boo jël baax na ni kul moo ñuy tële wala wal mutallaqat ña nga dañ leen fase ñoom seen idda kon mooy ñetti masri yooyu ñuy toog yàlla mu tuddee ñun fase leen tuddee ñoom fase la ko tuddee mu ne wala yaxillu lahunna an yaktumna ma xalaqa allahu fi arhamihinna in kunna yuminna billahi wal yawmi al axir te ñoom nag ne yàlla bind ci mooy masru ya ñuy gis waruñu koo nëbb su fekkee ne ragal nañ yàlla seen borom ak yowmal qiyam wala gëm nañ yàlla seen borom gëm nañ axira mu ne buulatuhunna xaqu bi raddihinna fi dhalik in aradu islaaxa ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم فيني ني موي خملة ci jamono jog non te gëna yalla te ñoom jëlat leen muy seeni jëkkër يلا دام لنك لموت من الطلاق مرة <laughs> من فاسي نيار يون لا فاسي نيار كي نيار يون لي امي نيال لا تود دي فاسي لموت تود دي فاسي يالا سونو بروم موي بلا ني ديف سين عدة ندا دنا وال مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو من يون الطلاق مرة كون فاسي غوغ نون غا نيار يون لمو نام من فامساكم بمعروف او تسريح باحسان moy fassé googu non su amé ñaar yoon légui jël ko nak nga jàpp ko ci bu baax wala nga bayiko ci lu rafet mu wala yaxillu lakum an ta'khudhu mimma aataytumuhunna shay'a illa an yakhafa an la yuqima xudud allah yàlla dadi jël nañ fassé ñaar yoon la mu indi leneen moy xulu moy simmeku mu so fassé nak du dagan nga jël lenn loko joxon ci ci dot bi doo ko nangu danga nu de lu dut ci anam gi mooy su fekkee ne da ngeen a ragal fii nii mooy dañoo ragal ne ñoom seen sëy bii ñuy sëy ne suñ ko continuer duñu taxawal la yàlla subhanahu taala bëgg mu ne fa in xiftum an yuqima hudud allah fala junaha alayhima fi ma iftadat bih fii nii li muy wane mooy ku soxna si moom amadu ji moom mooy négocier li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy xulaam mooy dem yaakaar na ne sëy bi suy continuer dootul taxawal la yàlla bëgg ndax mën na bëggatul jëkkër ji nangam mu négocier waaw su boobaa nag moom mën naa jël lenn lañ ko joxoon daal di koy delloo kon tudd na ñaari fase tudd la fa mooy xolo tayib mooy foofu noonu mun nga joxe jigéen ki mën na joxe ci leen d'accord fii ne da fii dañu amee commun accord mooy man maa yow yaay jëkkër bëggoo fase yow su nekkul da ngaa bëgg a fase mais soxna si moom ragal nee ne sëy bi daal suñu ci toogee duñu taxawal yàlla bëgg moom mu bëgg a génn ci say wa boobaa nag dagan na léegi jëkkër yi mu am lu mu jël ca la mu joxoon ñoom comme accord ma xaalis bi wala la ma joxoon lenn ci lenn li ma daal lay simmi nga dem si yoon yàlla daal di dellusiwaat na ci ñetteelu fase ba mu ne fa in tallaqaha مويس نبان جنا ولا طلاق مرتان منافين طلقها بسبك فسواتي جنا وبمن الطلاق مرتان فسوات قولا يلا لم وقت طلاق رب لم يتد فسه ما يفسن على وخذ جنا بعدك جه من فان طلقها نك بسبك فسواتي بوم نتل بي من فلا تحل له من بعد حتى تنكه زوجا غيره موي بسبك فسواتي بما نتل فسبي اول بعد بي جه ريت بسبك فسواتي دو توت ko dagan lu dut mu takk beneen mu takk beneen beneen jëkkër wala beneen jëkkër takk ko bokk moom am beneen jëkkër mu ne fa in tallaqaha fala junaha alayhima an yatarajaa in danna an yuqiima hudud allah wa tilka hudud allah yubayinuha li qawmi yaalamuun jëkkër jooju na bis bu ko fasewaatee su boobaa dina daga naat mu mën ko jëlaat su fekkee ne jàpp nañ ne seyaat boobu suñ seyaatee dinañ nekkaat ca la yàlla subhaanahu wa taala dinañ taxawal la yàlla digle dinañ yem ca limite yàlla tracé mu ne lii mooy li leen yàlla di leeralal te lii mooy atte yi nga xam ne yàlla da leen koy leeral te koy leeral mooy ñi nga xam ne ñoo xam kii daal bokku ci ñi xam moo tax mu jàpp ne ay yi dafa lenn lu ciy wax ne man ñi ngi tàmbalee compter ci ginnaaw idda mate ban fii aay bi fan la waxee ci fan ci fan la aaya bi waxee ne wala aaya yu tudd yëpp fan la waxee ne ñu ngi tàmbalee compte ginnaaw bi addamate ba lépp la muy firndeel mooy la muy tuddee fase mooy ba nga xamee ne fase bi jib jib na mu tàqale fase gi ak idda gi fase gi mooy fase moo tax mu tudde al mutallaqaat wal mutallaqaat kañ leen tuddee mutallaqaat mën leen tuddee mutallaqaat ginnaaw ban la waxee fase nañ la moo tax mu tuddee mutallaqaat ne ñañu fase yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru waxut ne ñoom ginnaaw thalathata quru si lañ tuddee al mutallaqaat donc su dee soit tamit ak talaaqu marratan rek kon fase googu noonu ñu ngi tuddee mutallaqaat nga xam ne fase gi moo tax loolu ñaar la su ñaari matee jàppale sa soxna ci yiw wala nga ba ci waaye doo fi nekk naan fase di fase di fase fase jeex na rek jeex na ñetti moo ci am bis boo ko fase waatee dootu la dagan lu dut ne. ndulut ne dafa war a dafa euh, dafa ak beneen beneen na beneen na beneen góor loolu tax ci fase bii ne ñetteelu fase ba ñetteelu fase ba tudd fa mu tax war xaar idda ndax léegi jeex na parce que ci bële moom dañ doon xaar nga mën koo jëlaat ci biir ci biir sëy wa donte dina toog xaar ngir li nga xam ne mooy istura rahim ndaxte lii di idda li tax ñu koy def daam ñaari xikma ci nekk moom benn la tudd moom ndax du setal alquran am na benn xikma bi mooy ah jëkkër ji ci ñetti weer yooyu ñetti masur yooyu noonu mën na ci dellu xelam daal di jëlaat soxna si te su dina xam ne fekkoon ne kon ci ñetti weer yooyu sax bu ko neexee mën na fase mën na fase daal jëlaat kon xikma bi mu tudd moom ne sax mën na caa dellu xelam saa bu idda bi jeexee mu jëlaat kon dootul am problème ci naan dina xoolaat xelam dafay fas saa bu ko neexee rek saa bu waa dinaa jëlaat ça pas on verra mais le fait que idda bi ñu teg ko ci nit ki mën a xalaataat ba mën a jëlaat soxnaam mooy dafa am benn natija ginnaaw mooy rek kii dafa am limite buñ ko may moo dina bàyyi xel ne amul droit di fase di fase di fase rek. si du am benn njëriñ ñu naan ko toogal xaaraat ñetti pour xikma bi ci ñetti weer yi mooy mu delloo ci xelam ndax kooku moom mun na fase ci ñetti weer heure bu ko neexee mu jëlaat kon mun na bañ sonn noonu a jël sax mun na jël di fase di fase rek di ko jëlaat di ko jëlaat di ko jëlaat di ko jëlaat jëlaat ndaxte ba tey kenn du ko konteel lislaam fa ko jëlee tënkal ko mbir mooy tax nit ki nag di dal ci xelam laa naa def nanga de sama soxna si fase fasewaat ko ñetti yoon faare pare naa fase benn yoon ñu ne ko benn ngoog xaaral idda bi may nañ la idda pour nga mën ko jëlaat te moom mënta see kenn lu idda bi dafa mat te bu ko génne nag ba leen ko ci kër gi xikma bi ngeen gisantee sa xel jël nga leen koy jëlaat et su fekkee ne ci idda boobu nag saa bu ko neexee mën na ko cee fase jëral ko ci ana ana xikma boobu beneen ma bi nag mooy ñu daal di assuré ne moom kuy dem yóbbuwut li nga xam ne mooy doomu jàmbur ñu daal di bàyyi ñetti masri xam leer ni kii moom ëmbut ñu ba ko mu daal di dem bobu andi ko mo da ci sootu talaq mo lan bu ñu neub la nga xamne mom la yàlla sunu borom daal di ci seeni seeni maîtrise wala ci jublu moy lan mooy alxayib nga del ci aay bi mu ne attalaaqu marratan fa imsaakun bi maaruf aw tasriixun bi ixsaan bis boo defee ñaari talaq yooyu la ca des ñaari mbiram imsaak bi maaruf aw tasrih ihsan nga daan koy jabat jàpp ci njëkk nga ko bàyyi ko ci bàyyi génn bu rafet te bu jël dara la nga leen jox loolu mu nekk ab xulo fa in talaqaha nag bis bu ko fase waatee fala taxillu lahu min baad ginnaaw fase googu dootu ko dagan ci Mbacké Sakho ci xelam moom moom moo nar a indi njaaloo ci sëyu nit ñi moom Mbacké Sakho ci wax ma moom kon su ko fasari ñetteel gi day xaaraat idda ga su fekkee ne idda gi jeexut mën na koo jëlaat te yàlla li wax la fa fa in talaqa bis bu ko fasewaatee ñetteel moom fala taxillu lahu min baad moo tax yàlla suñu borom ñaari talaaq balaa mën a at-talaaq marrataan mu indee idda ci ñaari talaaq yi jiitu moo tax mu ne wal mutallaqaat yatarabbasna bi anfusihinna mu xamale ne mu lii mu tudde mutallaqaat xam nañu toog ñetti ñetti ñetti quru' yi ma leen xam ne ñoom mu dugal ko ci moo tax ba mu paree woon rek leeral la xuloo mu ne at-talaaqu marrataan mooy ñetti mutallaqaat yooyu muy wax noonu ñooñu nga xam ne dañuy toog sarat quru ñett ñaari yoon lañ ko may mooy ginnaaw ga nag ba mu ñëwee ci ne ñetteel ba mu ne fa in tallaqaha bis bu ko fasewaati rek xel taxillu lahu min baad du ko daganal du ko daganaat lu dut ne dafa dafa indi li nga xam ne boo lu dut ne dafa amal beneen jëkkër nikk ki mun naa wax waaye ba mu ñëwee ne fa in tallaqaha mooy bi beneen jëkkër lay wax foofu indil fa fëndu fa iddati iddaam na ñu ne xam ne waaw ndax ah xam ne kii moom fa in tallaqaha mooy xam nañ ne fa in tallaqaha mooy jëkkër ji moom mi koy doog a takk kon kii benn fase la benn fase googu dañ koy delluwaat ci ay yi nga xam ne ñooy xaar idda gi bis bu idda gi matee jëlaatu ko jëlee ko jëkkër ji mën a jëlee waaye ba tey fase la ko tudde fa in tallaqaha fala junaha alayhima yatarajaa bis bu ko fase waatee maanaam su ko fase waatee moom mooy keneen moo ko fase mooy kii jëkkër ko takk te takk ko ci takk goo xam ne ngir takku euh, euh, pour euh, ñu tudd Sénégal tuddee <laughs> baaru yugub naam duñu tudde baada zawjin su fekkee ne takk ko takk googu pour nal ko bëy ba ah, su boobaa bis bu ko fasee ñu xaar ba it dëgg mat jëkkër ji nga xam moo ko fase woon ñett yoon mun na koo jëlaat kon aay yi yëpp amul benn ci aay yi boo xam ne dafay ñëw di wax ne nit ki kenn du ko fase wala boog suñ ko fasee fase ba ñu ngi koy tàmbalee konte ginnaaw ba idda ba jeexee fase ba bañ koo fase ci liñ ko tuddee ku ñu fase foofu la islam konte fase gi mu toog idda wu su idda jeexee su fekkee diggante bu jëlu ko mu dellu kër baayam su ko wëggaatee da ko war a takkaat su ko fasee ñaari yoon mu fase ko jëlaat ko même ci la fasewaat ko ci idda googu noonu jëlaat ko daal koy fasewaat su fekkee ne noonu la ko amee ñetti fase yi mat na sëkk du ko mën a jëlaat te loolu la alquran jàngale bala ñoo sa sunna bi xam moo ko gën a faran fàcce waaye soo yemoon alquran kese digg alquran di nga xam ne loolu wuteew lag dara ci li nga xam ne ci la waa sunna nekk moom la ñuy euh, moom la ñu jàngale incha allah mën nañu yemale fii suba incha allah ñëw ci beneen vidéo boo xam ne wax na ko ci li nga xam mooy fay julli te rek ci xam ne moom mooy ni muy jëlee ay di ko fowe ay di wax la nga wuuteeg moom la nga xam moom lay wax allahul mustaan salaamaaleykum wa rahmatulah